rabbi bi maa yasrohol asaana xarfaja bi jaayi afdali man lillahi xadlaja bi jaayi afdali man lillaahi xad la jaa amdi li rabbin karimin laa sharika lahu wa sarriyal yawma nuuran saati an malaa muhammadun salaawa rahmatullahi fi abadin alayhi fi isbi kulli bihi kala ado ilahi lasi amad mawahibuhu li jumlati lxalqi ma yaxtaaru man bara أعوذ بالله السميع المعين من شر الشيطان اللعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدى العباد إلى طريق الرشاد والصلاة والسلام على النبي الناطق بحرف الضاد wa ala alihi wa ashaabihi sawi amjad wa alayna maahum ila yawmi tanaad wa ala xadimihi albatal al akbar alxaail kon mbooloo mi noo ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi saaxibul fadila sëriñ Seydi al Moxtaar na fi yàgg lool te wér ak mbooleem njabootu borom Touba ñu ciy teg sëriñ Abdou Latif Jenn xalifatu maam Cheikh Isa Jenn ayyadahu llahu wa nasarahu di ci teg sëriñ Basiiru Jenn xalifatu sëriñ Baare Jenn yàlla na ko fi yàlla yàggal te ko ginnaaw loolu noo xam ne ni tey jii ñëwaat nanu fas yéene leen a dégtal waxtaan wi nga xam ni dañ koo baaxoo di amal at mu ne nuy ñaan suñ borom dajaleen ci ak tawfiixam waxtaan woowu nag ki koy waxtaane bokk na ci sëriñ daam silla moom la ñuy ci thème bu ñuy wax jokk ak bokk loolu di thème boo xam ni jamono da ko war di delloosi ci waxtu wu ne buñ jógee ci sëriñ daam sëriñ siidi jenn naar mooy président d'honneur bi yàpp lena ci turam la sëriñ Mbàkke jenn sëriñ naar di waxe ginnaaw loolu ñu jox sëriñ gann meseral maxtaar bu sëriñ gànn eggalee ñu jox délégation bi ci jiital sëriñ soxoy bu jenn moom sëriñ Mbàkke Marema mu leeral nu jàngalaat nu jikkoy ku baax ka ku tedd ka sëriñ mbakke Marema nga xam ni bis bii moom lañu ko tudde bu ñu jógee foofu ñu jàll ci sëriñ Cheikh jenn Youssoufa mu waxal ñu ci Cheikh Mouhamadoul Amine jenn ni mu daan toppatoo ak bokk bu ñu ci jógee ñu jox sëriñ Cheikh jenn ibnu sëriñ soxoy bu mu wax ci turu daayira bii di rabitatul muslihina wal muslihat kon loolu mooy programme bi sayidina wa mawlana muhammadin ilmakin wa ala alihi wa sahbihi zawil mayamin wa man tabiahu bi ihsani ila yawmi din rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبكلام يوم الإشارة احد مريدا يبلغ لله Good night, our con Today we are going to discuss about Sheikh Muhammad, about the life of Cheikh Mouhamadul Amin Bara Diagne I'm very happy today I'm apologizing for you for not preparing my speech dear condisciple Murid I'm going today to introduce you Serigne Bara Diagne everybody here know that Serigne Bara is the oldest son and the first Khalif of Cheikh Issa Dieng zarsuwaay today this is a holiday if you find that we are here in front of you to tell you about Serigne Bara because some of Our condisciple Murid who are in abroad, namely in France, Italy, in Spain, United States Kingdom, and on and on and why we decided to translate this speech in English in

on Sheikh Isaa's Khalifa he is not he was not the first disciple or the last disciple of Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba but spent all his time all his years to work extremely for Cheikh Ahmad Bamba that's why Shah Ahmad Bamba has greeted us and he called Sheikh Isa his holy father, to tell him, I'm very happy for your son, Sayyid He was among the Shah Bamba disciples and he was responsible for the mosque in Jubal. If we translate this speech in English, because of many of co-disciples who are in abroad and who are not Muslim, who are not Murid, and want to know something about Serigne الحمد لله الذي نبه أهل السعادة من نوم القفلة والجعل والإثيان وأخرعهم بالطلب الصواب والمردات والكفران الصلاة والسلام على من أنقذنا من القسران والإرمان daa salaka bina mahya an yudxilna aljinan wa yunajjina min anniran wa ala alihi wa ashabi allasina sayudjina fi afaq wa min tabim ila min tabim san ila min din wa ba'du fa hadithuna layla mutawajjihun ila amrayn al awalu bila fawaidi silatu rahim wa saani bila madrati xat irham kama qaala Allahu subhanahu wa taala fi kitaabil aziz والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لعنة الله والأمم الدين mustami'una alkiram saada ixwat al islam aisa asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa bokki jurit yi fi teew ak bokki taab yi fi teew ak sunu sëriñ yi fi teew noo ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen sant ci teewaay yi di jagleel nag nuyoo xaasatan kilifa gi nga xam ne moo nekk ci boppu kër gi mu di Serigne Abdoul Latif ak Cheikh Mamadou Bachir mi nga xam ne moo nekk ci kër gi nekk di fi jëwriñ ñu fiy teg suñu kilifa nun man ak alaaji Silla ak ku ne ci jumaa ji ñu fiy teg suñu kilifa mu di Serigne Cheikh Alim mi nga xam ne mooy sunu imam ci jàkk jumaa ji di ñu soññ lool ci ñu waxtaan ci diine ji te di ñu xeertal lool ci ñu xabal taalibe yi Serigne Touba noo ngi koy sant bu baax di ko gërëm kon dafa am lu nu fi indee mu di sëti Cheikh Mamadou Lamine Bara bii di ay sët yoo xam ne rafet nañ njort na ñoom dugg nañ ci groupe bi nga xam ne ñoom la Sëriñ Tuubaa doon ñaan yàlla ci ay sët wa ablana zurriyatan tudimu al amal saaliha yaa qadimu sët yooyu man gis naa ne Cheikh Mamadou Lamine ay sëtam ci biir sët yooyu la ñu nekk lu tax ma xalaat ko muy guddi gii ñu defal Cheikh Mamadou Lamine Bara ak waxtaan wii ñu tànn ngir ñu def ko ci guddi gi xóot na lool te su ma nee xóot na lool mag ñi nga xam ne am nañ juróom ñetti fukki at mbaa lu ko manqué tuuti danañ xam li ma wax silatu rahim fu ñu koy waxtaanee ci kër sëñ Baara Jenn ñu koy waxtaan lu si sëñ Baara Jenn muy loo xam ne sëñ Baara Jenn daf koo dund ci Sénégal daf koo dund ci réew mi daf koo dund ci yoonu murit waaye da koo dund ci dëkk bii nag ci luñ xam duñ fekke sëñ Bara Diène benn tànku ndeyjooram da koo tegoon ci silatu benn tànku càmmoñam da koo tegoon ci islaaxu baynal baynal axwaani aw aqawayni aw saatal wala ñu taxaw foofu ndax bëgg na xóotal trop ci wax ji man na wax benn tànk bi da ko tegoon ci jokk bokk benn bu teg ko ci defar ab diggante bu yàqu walla walla bu naroon yàqu doy na ci junju kon ci jokk bokk lan na waxtaan loo safaan ba mooy dog ak bokk yàlla ci alxuraan ne wala si ñan xuda ahdallahi min baadi misaaq yi wa yaqta'una bii amara Allahu bi an yusla wa yufsiduna fil ardi ulaa'ika lahnatullahi wala um suu diir sun borom tabaraka taala moo njëkk tëkku ci alxuraan ñi nga xam ne dañuy fet ci kóllëre ak ñi nga xam ne dañuy dog ak mbokk ak ñi nga dañuy dox ci kaw suuf di yàq di jaxase dem fee wax lii dem fii wax lii ba ak dëngoo am wala réeroo am yàlla ne da ngeen xam ne ñooñu man yàlla rëbb naa leen te seen delluwaay ëllëg ca kër ga ñu dëkk kër gu ñaaw lay doon te mooy sabara kon it jub gone yi jub sol seen dàll tey boroomi xam-xam nag fas yéene jikko yu bon yooyu di yóbbu ni sabara ñu xamal ko nit ñi leeral leen ko ndox seen diggante jikko yooyu ba duñ ci jaar yorat na leen cat te sun borom tabaaraka wa taala wax ci alxuraan ne huwa lasi xalaqa min al maai nasaban huwa lasi xalaqa min al maai basaran huwa lasi xalaqa min al maai basaran fa jaalahu nasaban wa siiran wa kaana rabbuka qadiira su ma dee jàkkaarloo xëy xëy ak suxaane damay tiit sax ku ci mel ni sëñ Saam mi ma jàkkaarloo huwa lasi xalaqa min al maai basaran fa jaalahu nasaban wa siiran wa kaana rabbuka qadiraa sa borom nee na man yàlla maa bind ay bindeef ba mu neex ma ma jël mbindeef yooyu nag sàkk ci aw askan ñi sant Mbàkke ñi sant Buso ñi sant Sile ñi sant jenn man la neex ma def na sa boobu nag ma dugal ca chehran ay goro ñu takkat day soxna ngir bëgg xeet wi gën a yaatu bokk gën a yaatu ñu gën a xamante bokk gi man yàlla maa def loolu ci sama coobare sunu yonte leeral ñu wax ji yàlla bëgg wax foofu lu mu doon yonte bi ne li yàlla bëgg wax moo di ne dafa bëgg nit ku ne jàng saw askan xam lu saw xeet ba mën a jokk bokk gi taalamu min ansaabikum ma tosilu arhamakum yonte bi ne kon na ngeen xam lu mooy na ngeen jàng min ansaabikum ci seenu askan maa loo xam ne toosiloo da ngeen ci mën a jokke arxamakum seenu mbokk kon na di jàng seenu askan ba mën a xam nu ngeen di jokke mbokk gi kenn ku ne xam nooy jokke mbokk gi jokk bokk sunu yonent indi na ci ay biir xam naa ne fàtte na maa laaj midi yi ni muy toll ndax damay bañ de waaw yonent bi andi na ci naa ngi leen di fukki mbir fukk yoo xam ne dañ ko jagleel kuy jog bokk kuy jokk bokk moom rek moo koy am ci biir jokk bokk rek nga ko mën a amee mënoo ko amee ci te fukk yooyu benn bu ci nekk danañu leen koy leeral ba mu dugg seen bopp wér wa alamu anna fi basir arham asra xisaalin awaluha anna fi irdalai wa xaala xaadima rasul wax man li man in taktasib irdaau yakfiika fi daarayni ma taxsaau wa saani idxaal surur alayhim wa fi lxabar anna afdal al ahmali bada al faraidi idxaalu surur ala qulubi lmuminin wa saalisu anna fi usnu sanai wa rabihu anna fi xabban wa irxaban ala iblis wal xaamisu ana fii fara'an li qulubihim fa innahum yafra'una bi seeti rahim wa saadisu ana fii seedul umri wa saabiu ana fii yasidul barakati fi risqi wa saabiu fii isrul amwaat anna al amwaata min al abaai wal umaati wal juddaati yusiruuna bi seeti rahim min al xaraabati kama xallahu tabaraka wa taala fi kitabi asis wa taqullaha allati tasaluna bihi wal arham wa tasiu fi shahadati al mar'ati wal asru fi shahadatin fil ajri ba'da mamati li annahum yad'una lahu kull ma shakaru insanahu fukk yi dañ koy tënk rek ndax li fi war a dox bari na mu ne am na fukki jagle yuñ jagleel kuy jokk ak bokk kon yéen seen xel war na dal yéen ñi jël seen tànk teg ko ci fas yéenee jokk ak bokk fas yéenee xamal bokk yi lan mooy jokk ak bokk ak lu ci ne ci nga dem lan moo ne ci dog ak mbokk fukk yooyu ba ci njëkk ànd fi irida fi irida wala ngërëmal yàlla ngay njëkk am ci jokk ak bokk kon bi ngeen jógee yéen sol seen dàll xalaat seen xalaat bu rafet ne dañuy waxtaanal Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ci guddeem jokk ak bokk te moom mu dundoon loolu ci fii la ngeen cay njëkk a jëli yéen mooy ngërëmal yàlla ci ngërëmal yàlla nag ha inna ridwan rabbi an jaxu donfa wa saarajimu fa man arda u yantasibu li gën am solo ci àdduna mooy nga fexe ba yàlla te li di njëkk amee seen jëf ji mooy ngërëmal yàlla te Sëriñ Tuubaa wax ma man in taktasib ridaa'u yakfiika fii daarayni maa taxsaa'u xaadim nee na na ngeen di jëf-jëf joo xam ne da ngeen fexe am ngërëmul yàlla ndax yàlla mooy ki nga xam ne in taktasib ridaa'u su ngeen fàggoo ngërëmam sàkku ngërëm ba am ko yakfiika dana la fegal fii daarayni ci àdduna ak alaaxira maa taxsaa'u lépp loo ragal kon lépp lu ngeen ragal mu wóor leen ne seen jéego bii ngeen jéego te da ngeen ci amee ngërëmul yàlla te ngërëmul yàlla boobu seytaane bu ngeen ko joxee day leen fegal lépp lu ngeen ragal àdduna ak àllaxira kooku mooy première tomb bi ni njëkk a tënk rek gàttal ko cëri daalaay bi nga xëy dañ ko jàmm wasaani ilxaalu suróor alayhim ñaareel ba mooy tàbbal gi ngi tàbbal mbégte ci bokk yi mbokk moo dem jokk sa diggante ak moom tàbbal nga mbégte ci xol ka sës ci moom bég nag ka bokk ak moom bég na wa fil xabar yi anna afdal al ahmali ba'da al faraidi idxaalu surur ala xulubil muminin hadis ba nee na gannaaw farta gannaaw farta te farta bu ñu ko waxee mooy julli juróom weer weeru koor ak nàkk nit asañ yooyu ñooy farta mu ne gannaaw yooyu jëf ji baax ci jëf ëpp ci njariñ mooy fexe bay tàbbal mbégte ci xori jullit yi rawatina ak say bokk fexe bay tàbbal mbégte ci seen biir ma ne su ngeen jógee sol seen dàll tubaaletu jël seen wërsëg def ci seen bos dem ci seen bàjjan wala ci seen baay bu tëx wala seen mag wala seen jigéen wala seen doom bàjjan wala seen dooman yaay nga ñëw ne ko dama la yendal si wala dama la gane si jokk bokk ga tànk ya nga doxe dem fa lam ñoo nga waxe jëf jënga jëf lépp mbégte lay doon ci moom doon mbégte ci bokk yi doon ngërëmal suñu borom tabaaraka wa taala kooku mooy ñaareelu nga xam ne da ngeen ko amee ci seen jëf ji nga xam ne jëf ngeen ko ñetteel ba fii xusnu sanaa i lu yaatu la da ngeen ci jële aw tagg da ngeen ci amee aw tagg te tagg wa nag du doon wu ñaaw wu rafet lay doon waaye ñoom suñ saam ñëw nañ sa kër ñu ne waaw ñoom dañ ñëw nañ fi wax dëgg yàlla man dañ bëgg naa lool ndax ñoom daal bañ fa ñëwee teraanga lañ fi indi xamal ma it ne dañoo bëgg a jokk bokk yi daal bëgg bokk yëpp xamante jàppante te fonkante te dimbalante te suturalante daal wax dëgg yàlla xel yi daal seen tànk yooyu man bëgg naa ci lool ñoo ñoo yëpp bokk tagg la sanaawu boobu dafa yaatu sanaawu bu ma la doon indi sanaawu ngeen may ma tuuti ma misaal ko gone yi ndax dañuy bind sanaawu mu ngi mel ni sëñ Isaa Jenn fekk na fi sant njenn yu bari ci at yu yàgg ñu jiitu ko fi gannaawam sant jenn yi baree ngi fi mu ne ci digg bi waaye bañ nee sëñ Isaa Jenn jenn sëñ Isaa Jenn nag moo def sang yëpp jenn ju ne jenn ñu xoolal rek ndi jenn sëñ Isaa Jenn yi kooku mooy usnu sana borom tagg wu rafet noonu lay dem kon kiy dox ak bokk di jokk bokk ci biiri bokk tagg wawu lay am ci biiri bokkam warabi u am na fii xamman wa irxaaman li iblis aw ala iblis nee na jokk bokk ñeenteelu la nga cay amee tabbal nga njàqare ju rëy rëy rëy ci xolom iblis tàbbal nga ci it perte gum perte ak tiitaange jum tiit tiital nga iblis toroxal nga iblis jàqaloo nga iblis yow mi jokk ak bokk ndax iblis la ko gënal mooy mbokk gu dagg ndax ay nit bu ñaari bokk ñaari mbokk suñu meroo ñetti fan may ñaari mbokk suñu meroo ñetti fan la leen lislaam may ñetti fan ñetti fan yooyu buñ ci jubawut seen borom ndax dañ dindi seen tur ci àjjana ber leen fële suñ jubawut nag ba faatu dinaa leen tàbbal sawara ñetti fan lañ leen bay ñetti fan ñetti fan yooyu soo demee pour ma bañ gudde rek soo demee ci hadis dañ la ne guddi altine gu ne guddi altine gu ne dañuy jël li nga xam ne xeetu mu amat liggéey nañ ko ci at ci ci at semaine bi liñ ci mooy yàlla ak liñ ci def ci ñaawteef ñu wan ko yonent bi suñ demee ba guddi àjjuma ñu jël dossier bi déposé ko suñu borom tabaaraka wa taala diggante nag altine guddi àjjuma googu àjjuma gaaw dimanche ñetti fan yooyu may nañ fi nit ñi bu fekkee ni juboo di ko amoon na seen diggante ngeen fexe ba ñu juboo balaa altine ba daa dimanche si guddi ba ñu jël dossier bi fekk yéen génn ngeen ci meroo moomu bala ñoo déposé bi dossier boobu fekk génn ngeen ci su dee ci diggante boobu la nga xam ne diggante boobu ngeen meroo kon ñu jël alternative àllarba ñetti fan yooyu lañ leen may balaa alxames na ngeen juboo pour ñu mën leen a classé ci àjjana su ngeen juboo day dindi seen tëdd yóbbu ko sawara kon iblis loolu lay liggéey ngir mënal noonale xol yi ndax seen borom mën a dem sawara kon yéen ñi jóg taxaw ne dañuy indi jokk bokk yonent bi ne yéen kat indi li ngeen seytaane njàqare ak toroxte am na fii xamman wa irxaman àlla iblis ndax jokk ak bokk nekk na ci lam lay indil njàqare ak tiitaange torox te joxe dan dan iblis dana ko am kon koy koy toroxal iblis yaa ngi bëgg loo yàlla yaa ngi bëgg loo yonent bi salaa yaa ngi bëgg loo sëñ Tuubaa mooy ñeenteel bi li ngeen ci amee juróomeel bi am na fii farafan faraxan li xulubihim li anna um yafraoona bi seetul xam bokk yëpp am nañ mbégte mu rëy ci jokk gi ngeen di jokk bokk di ko tàbbal seen xol jépp tàbbal yéen ci xoli bokk yi mbégte mu rëy ndax lan ndax jokk bokk sunu borom dafa bëgg ay bokk wa ja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila li ta'aarafu maa leen def ay xeeti xeeti xeet bëgg ngeen xamante innamaa noonu ikhwatun fa aslihu bayna axawaykum da ngeen yéwénal seen diggante soo demut demuma waxoo waxu ba jëfoo jëfoo du yéwénoo kon dem gi ak jokk gi mooy tax nu yéwénoo kon jëf ju rëy ngeen def an na fii faraxan li xuloo bi im li an na um yafra oona bi seetira am kenn ku ci ñoom ci bokk yi danañ bég nekk ca njënd wala ñu nekk ca ndànd dégg ne xale yi day sudi sëñ baara jeen yi dajaloo nañ dajale bokk yëpp ngir ñu xamante jàppante jokk bokk gi rafetal ko kooku mooy juróomeelu lu ngeen def mooy tàbbal mbégte ci xeet wi ci askan wi ci mboolem tàll bi ñëpp bokk benn juróom-ñaareel ba juróom-benneel ba juróom-benneel ba am na fii yasiidul umri lu am solo la yonent bi nee na jokk bokk juróom-benneelu la ci amee mooy day day yokk saw fan saw fan day gën a gudd foofu danaa fi def misaal tuuti leeral la leen ndax danoon ci jamono yi xam ne booy wax ak nit ñi na leer ndax dafa am ñu jàng tey kontar ñu ne la yàlla day nee na nit ku ne dalaa wutal ab dig fa izaa jaa ajaluhum laa yastaxiruuna saa'atan wala yastaqdimuun dig ba su ñëwee dara du ca tege dara du ca wàññiku waaw kon yow na ngay jëfe jëf jëf ñëw guddal sa fan te fan yu yàlla yooyu wutal fa mu yem maa ngi lay indil ni ko sunu borom tabaraka wa taala defe te sunu sëriñ leeral ñu ko ban man koo xam sëñ Tuubaa dangaa yónni xele bi ci bitig bi ne ko jëndal ma genn wàllu mètre élastique xele bi dem jëndal la genn wàllu mètre élastique indil la nga téye ko nii ñëpp xam ne lii genn wàllu mètre élastique la nga téye ci koñ bi jàpp ci koñ bi xëcc ko muy taweeku di taweeku di taweeku ba nekk un mètre te yow jenn wàllu mètre nga jëndoon xaam ne tawil la naa umrana sa ahi la naa badana wa ab naa rusda wa tawfiq ya tawil la naa umrana loolu mooy tawil waaye nag tawil boobu nag soo bàyyi day del siwaat boo dig ba jotee soo bàyyi bu del siwaat waaye nag yëg guddal sa fan da koy yokk noonu lañ yokki aw fan noonu la yàlla yokki aw fan jenn wàllu mètre la nga téye ci koñ bi téye bi boo xëccee rek day yem un mètre kon loolu jokku bokk moo lay may yësidu fil umri day dolli si dund nga gën a gudd dund nga gudd lool waaw fekk na jëf jënga jëf moo neex yàlla yàlla dafa loolu mooy juróom-benneel ba juróom-ñaareel ba yasidul barakata fi rëski wërsëg bi la yàlla may bis ba mu la bindee la la bindal wërsëg ñoo ànd ñoom ñaar waaye yàlla nag bu dee bëgg wërsëg bu bari lool tey yokk da koy barkeel sëñ baa ne la barke nag jokk bokk day dugal barke ci biir wërsëg barke su dugalee ci wërsëg bi day gën a yokku suñu gën a bari albarakatu isaa daxala fii shay'in xayin kasaratu aksaratu barke su duggee ci mbir mu tuuti da koy baril di ko yokk muy gën di bari di ko yokk muy gën di bari suñ tuwaa ne noonu la yonent bi yaxante ne doonu la yàlla def ay yësiidul a bari di gën a yaatu kon loolu am ngeen ko ci seen guddi gu tedd gii ngeen tudde seen maam ji seen la jooju juróom-ñettal ba wasaabinu fii sururul amwaati li anna al amwaata min al abaai wal ummaati wal juddaati yusiruuna bi silati roxan min al xaraabaati juróom-ñetteel ba mooy bégloo yéen ñi faatu oh am ngeen foofu degrade bu rëy bu ngeen def boo xam xamul leen nu mu toll bisu tey jii mbégte bu sëñ Baara Jenn amoon fa mu nekk tey yokk na mbég mu ko gën am ëpp lay am tey. mbir mu sëñ naar amanta tey yokk na mbir mu seen wajuri jigéen yi aman tey yokk na xadis la sosunu ko li ann al amwaata min al wal ummaati wal juddaati yusiruuna bi silati rahim min al xaraabati bégloo ngeen lool tey ñu faatu ñu lu tax li ann al amwaata naka ñu faatu ñooñu ñu ne ko ñan mu ne mu abaay ci baay yi seen baay yi faatu ñu naa mu ne wal ummaati wala seen ndey yi faatu naa ah, mu ne wal juddaati wala seen maam yi faatu rawatina maam ju tedd ju dee sëñ ba sëñ baara sëñ leen baara la genn wala Cheikh Issa Diène maam yooyu tey ñu naa ah, ñu ne ñoom ne ñoom day yu séddoo ne dañuy bég dañuy bég bi silatil ami ci jokk ak mbokk minal xarabaati ci bokk yi way jege yàlla yi ngeen dem jokk seen digganteeg ñoom jokk mbokk yi da di bégloo kon ne leen wër ne bégloo ngeen seen maam tey bégloo ngeen seen maam Issa bégloo ngi seen naar jenn bégloo ngi seen way jiitu woon xadisa to dañ mukk seen jëf ju am solo la xalaat bu rafet ngeen def yal na yàlla guddal seen fan ñu mel ni yéen bu amee yaakaar yi mag ñi danañ dëgër kooku mooy suñu juróom-ñetteel juróom-ñeenteel ba bala maa dem foofu alxuraan nee na wa taqwala la si tasaabe bi wala ama yàlla ne na ngeen yàlla de waaye nag ak ak mbokk ndax yàlla ne damay damay laaj ñu ngeen jokk yoon mbokk mbokk gi du ngeen ko doon def jokkoon ngeen mbokk gi wala jokk leen woon mbokk gi dama koy topp dama yàlla kon gi ngeen di ko rafetal ko wax kon ñu dem ci juróom-ñeenteel ba juróom-ñeenteel ba fii seddul muruati foofu dañ koy gàtt rek ndax bëgg heure bi balaa jeex waaw eh, juróom-ñeenteel la mooy am na ci jokk bokk li yàlla defal muy day dolli muroha muroha mooy mbañam rus mooy jomb na maa def loolu ñu ne ñoom samedi ñëw nañ fi doon wax ci sama digganteeg diw wax ju rafet ba li ñagasoon ci sama xol man dindi naa ko diw de lu ma a def baal naa ko ndax tànk yi xale yi dox fii si jokk ak bokk ak liñ ci def man di dootuma dagg benn bokk ah mënoo néeg ba mu ñëw wax si ko boppam ndax moom gannaaw yaa ko mat dala mu ne déet jomb naa gone yi ñëw dox tànk yi rafet yii ma di ca teg leneen loxee day teg lañ doon dox kooku loolu dox ak mbokk loolu lay def ci aw askan da dox lu baax bu keneen bëgg ko yàq kam ko doon defal day jomb tànk ya nga dox mu dox yu te yooyu moo tax mu ne fii chadul muru ati dafay añ dafay dolle jomb na maa def nanga mbañam rus da koy dolle ci asgor fukkeel ba fii chadatu fil ajri bax dal ma maati nee day dolli sab yool gannaaw boo faatoo li tax jokk bokk baax bokk ni jëf jëf yi nga boo ko defee soo faatoo sa pay day gën di yokk ñee ne lu tax mu ne li am na um yedd oona law kulon sakkiru isaanahu saa bu ñu toogee rek gannaaw boo faatoo fàttaliku jëf ju baax ja nga daan jëf ci jokk ak bokk ak wax ju rafet ja daan wax ak dox gan ca daan dox ñu daan lay sant daan lay ñaanal ñaan yooyu fekk si la foofa mu yiw waxee du jeex mukk kooku mooy fukkeel ci lu ñuy tënk rek ci jokk ak bokk Sëriñ a nee na kon saloo bi layli at imoo taxaama af soo salaama wasilul arxama dee leen naafile guddi yi joxe ay ñam dee leen wasaare ci nit ñi waaye dee leen jokk ak mbokk ndax jokk ak mbokk ci la ñëpp de sunu yonent ba ne man yasil rahimahu eh, ubaariku lahu fi umrihi wa astajibu duaahu wa xada awaijahu koo xam ne jóg nga di dox say tànk ngir jokk ak mbokk di wax ak sa làmmiñ ngir jokk bokk di joxe sa alal ngir jokk bokk yonent bi ne ku ko def ku ne ubaarikuloo fi umri yi yàlla day barkeel sa dund kon yéen wóor na leen ne rafet leen jot ne seen ak dund dund gu barkeel lay doon suñu borom dana ko def yàlla du ci ba yow wa astajibu daa u yàlla day nangu sa ñaan kon bi ngeen jógee di dox lii lu ngeen ñaan yàlla dana ko nangu bokk na te bu ngeen xoolee mbooloo mi ñaanoon ngeen mbooloo bu bari bu ngeen xooloo sooy dox ak mbokk sa borom nangu say ñaan waxadaa abaa idihu bi te yem ak yow aajo yi nga amoon yëpp ak soxla yi sa borom dala koy fajal ni nga jokke mbokk yi ak ni nga rafetali mbokk ci ay jéego yoo dox ak làmmiñ waa waxe ak jëf joo jëf yaay faye kon am na solo mu ne la ñett yii nag yonent bi ne ñett yii nag fàttali am na lu muy def silatu rahim wa usnul xuluq wa usnul jawaar yi يشدنا في الأرساخ ويشدنا في الأحمار mu ne yu amir na diyaara wa yasidna fi amaari ñett yooyu ma la diwé silatu rahim wa usnul xuluq wa usnul jabaani ñett yii yu amir na diyaara wa yasidna fi amaar jokk ak mbokk ci sa wàllu kër ndey ci sa wàllu kër baay bokk yépp nga jokkale foo dégg diggante muy ñaaw nga dox ca foo dégg diggante ba ñagas nga dox ca foo dégg diggante bu yàqu nga dox ca ba lépp jag yonent bi ne loolu silatu rahim boobu wa usnul xulux ak jikko ju rafet ndax jikko ju rafet ci ko ma ci ko yor mooy man loolu ndax da nga dem ci koo xam ne tontam lu njëkk bu sa jikko rafetut doo mën a wax ak moom waaye jikko ju rafet moo lay may nga mën a wax ñëpp koy yor ak jikko yor ñu naa ah, mu ne wa usnal jawaari ak rafetal sa diggante ak dëkkaale ñett ñooñu ku leen boole yu amir nag diyaara day dundal kër yi day dundal kër yi day dekkal quartier bi day naatal quartier bi waaye wa yësi na fil amaar day guddal seeni fan day yokk seeni fan suñu yonent nee na kon xaalu sura salatam hadis boo xam ne bii maa ngi leen koy nettali yonent bi nee na inna rahmatallahi laa yansilu ala qawmin fii im xaati uruhum yent bi de ay nit lu ñu bari bari bu ñu toggee su yàlla sëppoo nit gëleen bëgg leen wàcc ci ñoom bu xoolee fekk fa ku dog bokk yàlla day te yërmaande ji du ci wàcc du ko wàccee kon nañ leen góorgóorlu ba jo mbokk gi ñu di ko jokk ni mu gënee